daw si leen ngeen abonné ci bi ngeen taamu di Siweul TV waaye bu leen fàtte mukk bés kolos bi ngir ngeen di mën di jot suñuy programme foo mënti nekk réew mi ak ci bitim réew Issa Maïga mooy ndaw li nga xam ne mu ngi jóge woon ci réewum Mali te doon liggéey ci benn tànganaa ci garage daaru ci dëkk bu sell bii di Touba man nag dañ ko dóoroon doo yu metti ci guddik fukki fan ak ñeent jàpp fukki fan ak juróom ci weeru juillet bi ñu nekk loolu nag mu ngi xewoon ginnaaw ab jàppante boo xam ne doxoon na ci diggam ak i client ginnaaw bi mbir mi amee nag ci ko sapeur pompier jëlee yóbbu ko ci hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba ginnaaw loolu nag ñu jàllale ko fële ca hôpital régional bu Njaareem mu mujjee ñàkk bakkanam ci alxamis ji ñu génn Babacar Dabo moom mooy njaatigeem mu ngi dikkaat ci mbir yi ak ni mu demee. xale bi ñu ko dóor bi sapeur ñoo fii ba koy jël. bay dem boobu moom mënoon naa wax laaj naa ko ma ne ko yow Issa lan moo la jot ak gars mu ne gars yi dañoo ñëw mu jaay leen ba pare ñu jox ko 5000 francs bi ñu ko joxee 5000 francs mu ne la yoruma weccet gars yi taxaw ne ko dañ ñuy delloo force après ci la jot ak ñoom waaw damaa ñoo fekk mu tidd après ci la ñu wax sappoor sappoor daal di ñëw jël ko yóbbu ko hôpital bi ñu demee hôpital waaw hôpital jannatu bi ñu demee hôpital Eh, waa hôpital di ma bind ordonnance ma dem jënd ordonnance yi ba ci suba gi ay 9 yoo ñu nee ma da di jàll njaareem ñu jàll njaareem jàll njaareem dem ba ñëw eh, après ñu nee ma léegi ay 18 yoo ñu nee ma léegi mën ngaa dox say soxla ba guddi ay 21h nga ñoom man heureusement toog naa fi ba minuit doog a dem foofu ma dem foofu minuit ma dugg ci hôpital bi fanaan ba bar ay 8h ñu woo ma jox ma kayit. Eh, médecin bi di waxtaan ak man ba ci yaag mu ne ma Issa mujj naa faatu. moom ndaw loolu nga xam nag ma nga jóge woon ca Mali am lu toll ci ñaar fukki ak juróom bu ñu sukkandikoo ba tey ji ci ki nga xam ne moo di Babacar Dabo mu ñuy xamal ne ñu ngi ñëwoon Touba ci magal ga la ñu génn moom nag mi ngi doon waaj sax ngir jël li nga xam ne moo di soxna ginnaaw bi nga xam ne mbir yi xew na nag moom Babacar Dabo yëgal na ko ñi nga xam ne ñoo di ay waajuram te nekkee ci réewu Mali. Eh, màggal daaw la fi ñëw Touba Dakar la nekkoon mais màggal daaw la fi ñëw waaw. mu ngi am vingt cinq ans no amagul soxna bi may ñëwee fii lañ doon waxtaan ci affaire yooyu yàlla dogal na lii am non loolu moo wax dégg yàlla ma ci ñan loolu moo yàlla rek moo leen mën a xam waaw ñooñu eh, ñi leen di fekk fekk ñooñu daw nañ parce que ñooñu dañoo ñëw rek fekk ñooñu dem nañ ñoom it mënul leen xam parce que dañoo ñëw rek ñooñu daw ñooñu def nañ li ñuy def rek daw ah, ba bagage yaay nii bagage yi ñu fi bàyyi moo fi moo nekk nii moom lañ fi bàyyi ay daal ak ay pepp kuur gi ñu ko dóor mi ngi nii loolu lañ fi bàyyi ak fookaay gone yi moom lañ fi bàyyi. ay mbokkam yëgg nañ ko ndax papa yàlla dogal na dundul yaayam mooy dund yaayam bi ma ko woo expliqué ko nee na ma affaire bi métti na trop waaye nag nee na mi ngi koy jooy yàlla parce que nag loolu yàllaa ko dogal parce que moom nee na nekkoon na Niger booy bi xale bi nekkoon na Niger jógee Niger ñëw senegal ba nekkoon Dakar ñëw Touba yàlla dogal mu faatu. te nee na yaayam nee na gëm na ne fi mu faatu dina dugg àjjana parce que nee na dëkk bu baax la nee na Touba ñëpp ñu ngi koy dégg sunu tuuba adduna bi yëpp nga koy dégg. E jamono ji nag police bu Touba ubbi enquête ngir leeral mbir mu ni mel Babacar Dabone bu toogee ay fan te déggu ci mbir mu dara faw rek mu jàllale ko te ambassade bu Mali bi nga xam ne moo nekk fii ci réewum senegal su ma toogee ay fan dégguma dara rek damay dem ambassade Mali xamal leen loolu parce que Sénégal yaa ngi Mali te ñun ñi nekk Mali Sénégalais yi fa nekk. dañ leen di jàpp kon suñu suñu yoxaana ñoo bokku ndey ak baay kon ñooñu bu ñu amee problème ñun dañ ciy taxaw parce que lii aussi fii vraiment am na ay taxawaaykaay parce que maa ngi sant sama mbokk yi nga xamante ni ñoo fi nekk ci koñ bi taxaw nañ ma loolu sama ndekk ndooy sama xarit yi yëpp a ma taxaw ndaw si leen gaaw ngeen abonné ci site bi ngeen taamoo di Siweul TV waaye bu leen fàtte mukk bës kolos bi ngir leen di mën di jot suñuy programme foo leen mënti nekk ci réew mi ak ci bitim réew